góor jigéen gi bëri na Sénégal lesbiennes yi bëri na Sénégal waxoon naa la ko léegi ci commencement bi neen boo yoree comportement bu góor jigéen ku gis sa photo day gis si góor jigéen ci yow sooy dox ñi xam ne góor jigéen añ ci yow dama ne bakkan dafa foor foofu lay tëjee sama waxtaan nag te doomu aadama mooy xalifatullahi fil ardi wala xad karam naa bani aadama yàlla dafa teral doomu aadama dañ ko war a delloo teraanga boobu Abdul Aziz boobu noonu du ma egg ci dabalaa gi tekki wutoon dara ci réewum senegal mosuñ see wax ci débat maa ngi nii di ci wax tey mais biñ ko reyee polis jóg na plateau yi nit ñaa ngi cee wax télé yi nit ñaa ngi cee wax Serigne Mountakha xolam tooy na ci lii Serigne Mahi Niass xolam tooy na ci lii Serigne Mouhamadul Mansour si xolom tooy na ci lii xalifatu Tijaani Tiwaawoon asamaan si yëngu na suuf yëngu na aras yëngu na kursi yëngu na. ndax bakkanu doomu aadama lañ jël Sidy Diop bul ma wax ci mbiram mu nekk garab boo xam ne maa ngi ñaawlu yéen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñëpp frère Animal Vision TV te ñu daal toppatoo Cheikh Khalil dina waxtaan ci actualité réew liggéey li ñu gën a ñor nag tey dafa nekk loo xam te mi ngi partagé wu ci réew mi mu nekk ay euh, yoo xam te mi ngi ay mbër wala sax ak koo xam dafa génn àdduna ñu koy taf fu nekk di ko tuumaal mbirum góor jigéen ginnaaw bi ko dencee ba pare ki xam dañ ko fekk appartement am rey ko moom ak xaritam mu lu doy waar loo xam ne xew ci réew mi nañ ci waxtaan Cheikh Khalil maa ngi na yàlla nangu ziar nuyoo moom tey du am ndax nuyoo jàmm la te réew mi nekkuñ ci jàmm laajal ma tontu. am na solo fi ñuy commencé mooy bëgg naa ñu dugg Aziz Dabala mi xamante ni génn àdduna ku nekk mi ngi koy taf di ko tuumaal mbirum góor jigéen mi xamante ni ba muy dund ñu bëri dégguñ ko woon ci moom mu nekk loo xamante ak actuellement ñu bëri ñu koy naqarlu te yaayam aussi mi ngi ci naqar fa même mi ngi ci naqar naka nga gisee lool. waaw loolu li ñu ci jàngee mooy ku nekk góor gu nekk da def yëfi góor. Mm-hmm. nit ñi duñ la ñemee wax loolu dañ koy ruuma naat seen biir biir biir yi. Mhm. soo dee nag mënatoo tontu kenn du tontu nit ñi tawil la ñuy mhm. wax. Mhm. ba pare na nga fexe ba am melokaan wu rafet ku gis sa photo xam na yow mii góore nga. góor a ngi nii. macha allah su fekkee yàq nga sa soppi nag sa yaram wi buñ nga gisee gis sa jigéen jigéen a am na solo moom lu mu gis rek lay wax kenn mënu leen tere wax. ci loolu bëgg naa laaj benn point boo xamante ni ku ñuy wax euh, Nabou Leye koo xam te dañ ne woon xaritam la actuellement nit nan la war a dundee ak xarit parce que ñu ngi naan moo ko jaay wala jaay ko xarit ak doomu aadama ku nekk ak sa xarit nan ngeen war a dundee. arab bi daf ko wax daf ne xarit mooy ki nga xamante ni mooy séddoo man samay naqar. Mhm. muy défendre di sànni ak noono ak mbañeel. ci mhm. képp daf ma bañ. Mhm. maanaam xarit mooy aw xarit nga du goro boo ko xaree. la saf ca bee moo saf ca ba ca des. xarit nekk amatu ci jamono jii ànd daal ci ki nga xamante yéen a bokk bëgg-bëgg dox ca di dem rek ki nga ànd ak si bureau bi da naan sama xarit la. ki nga bokk koñ sa xarit la. waaye bul fàtte ne damay faral di wax ñi may liggéey na leen na ngeen moytu soxor ak waa koñ bi ndax dañuy tëg bët kon ñi ngay àndal dañuy tëg bët da ngay soxor gi mën na indi ñu reyante am na solo benn nanga nga mooy tamit soxor ak sa waa koñ waa dëkk bi nga dëkk soxor moo indi lii de. Mhm. añaan rek moo indi lii kon nañ ci bàyyi xel. am na solo balaa may dugg ci beneen question bi mu nekk ay lomotif yoo xam ne ñu ngi naan benn mbër ay lomotifam dafay waaj a génn. koy bu ndaw bu sew. dina génn fan loolu bëgg naa ñu waxtaan ci mais balaa ma ciy dugg dafa am ay produits yoo xam ne yaa ngi koy jaay waaw bëgg naa sax ñu ñaar benn bennal ko wala ñaari dafa am benn boo xam ñu bët dañ naan doole ji dafa que dañ ko war a diw ci seen awra yi mais dafay rëy ba mu ëpp loolu aussi ndax du indi problème déedéet du indi problème nga li tax ma jot ci vidéo maanaam koo yu gàtt yooyu sew yi mhm. nit moo la ko yónnee ne kii dafa sewle dama bëgg mu rëy dëgër gudd am na benn waay bu ñu wax xaw ma nan dambal mhm. benn waay la bu nekk bitim réew ñi may jox ay vidéo rek ngir kooy bi mu yor daal dafa rëy dafa dëgër loolu dara gis nga kooy bu gàttee nii sew nii boo jëlee garab bii nga xamante mooy pot bu mag bi di ko sa kooy dafay rëy dafay dëgër boo ci toppee sa xol nag mën a dem ba toll nii de bu boo nag yaa koy réglé kooy daal ci góor gu nekk war na yor ngëb yoraan ngëb boobu ba des ca kaw mhm. garab bii nekk doo ko lekk doo ko naan da koy ubbi ne bismillah taqal ko ci sa kooy di ràcc di bës. Mhm. loolu tax mu rëy mu dëgër. am na solo. boo yeewoo continué waat maanaam garab la boo xamante ne baax na ci kooy lool daf koy màggal de xam nga mbër yi sekki bi ñuy sekki. Mhm. xam-xam boobu ñoo ngi ko jële ci dugubu suuna soo weddee li may la wax laajal waa Saloum cere ji buñ koy wowalee ba wow buñ ciy sotti ndox mi di ko siim day sekki. Mhm. dugub suuna boobu lañ def ci garab bii. moo tax dafay faj feebar bi wàcc ci kooy bi ba kooy bi di nooy di gàtt dëgëru garab bi soo koy diw ci kooy bi daf koy dëgëral daf koy réyal daf koy guddal am na solo bi loolu jàllee am na benn lomotif boo doon juñ sànq mu nekk mbër yoo xamante yéen dañ leen tuumaal naan mbër la xaw ma ak journaliste ak benn rapporteur boo xamante yéen nii jigéen daal bokk na ci ñu koy tuumaal ne dafa loo def ay lomotif ndax loolu war naa am ci ëllëg làmb waaw xam nga nit ñi yaruñ leen jànguluñ leen li ñu lekk lewut soo lekkee ba suur nag da ngay mbërti mbërti mel ni fas di sëy ni comme ganaar ganaar a dàq sëy waaye moo gën a gaaw daanu le motif yi bari yëpp kooyee baaxul rek ku si yor kooy bu baax waxuma kooy bu sew nii de ku si yor kooy bu baax bu gudd bu rëy nga baat boobu ba des te dama ne góor gu nekk war nga yoon loolu soo ko amut nga dem jëndi garabu kooy bi soo ko roofee jigéen gi nga xam ne ca buli ga lay egg mu xulli bët yi lam ne woon ngéej mooy wàcc ma wax naa leen ko léegi danga war a naan garab gii di jéggi dayoo naan koddal gi mu faj tàngal deret gi ngay gaaw a koddal koddal gi yàgg mu rëy ba jaaxal la nga roof ko ko nga koy sëy ba mu wow koŋ nga continue di ko sëy ba mu tooyaat nga dem ba si yàgg mu ñaq dem ba si yàgg na ne la baal ma yaa may gaañ kon nekk am nga ndam góor nag wala jigéen boo ko jàppee sëy ko ba mu ne la yaa may gaañ wàccam xoolal ma général. Mhm. ki nga xamante ne dafa jënd jigéen bi jënd garabu kooy bi. Mhm. pour kooyu la bëgg mu rëy dëgër gudd. ma ne ko 21 jours la waa ji ëppal ba mu toll nii ndaw si bi mu jëlee loxoom dugal ko ci tubéy waa ji dafa taal làmp bi ndax jaaxle ma ne ko damaa yaakaaroon dafa am loo dugal si biir tubéy ji xoolal xoolal ma loolu rek da ngeen war a wut garabu kooy yi ngeen koy diw seen kooy yi muy dëgër di rëy di gudd bu ko defee xale bi xam nga moo tax motif yi di bari lan moo tax. kooy yee baaxut. Hmm. maanaam ndaw si danga koy sëy mu lay vidéo pour wane preuve ne yow kooy bu gàtt nga yore yaa ngi yor xaalis am nga alal yaa ngi siiw yaa ngi nangana mais kooy bu tuuti nga yore pour mu siiwal ka nag moo tax mu yónni kii kii ne laay yow gis nga samay kooy bu ndaw la yore kon da ngeen jënd garabu kooy bi di naan garabu naan koddal gi jàmm am ngeen nekk ci sutura te sutura dafa baax général damay wax ñi may jaay garab yi naanal garab gi jàpp soxna ci di ko sëy ci guddi gi bu fajaree nga sëy ko ba tàng jër ba jàpp neex-neex ba te bu mu xam ne yaa ngi naan garab nga suturaal sa bopp. am na ci beneen question ma tontu la te maa ngi naqaru lool ki ñu rey de. am na solo. Oh, na ci état bi def liggéeyam. Mm-hmm. ñoom Ousmane Sonko dañoo ñëw taxaw ne jubbanti jubal kon lii waroon nañ cee teg seen tànk ñi rey ñi ñëpp ñi defal leen jëflanteeg ñoom loo xamante ne nii nit dootu ko nettaleeti dëkk bi kenn nekkul si jàmm tiit fi nekk nii. te mbir yi da ba ñuy bëgg yàgg nag waroon nañoo jàpp ñooñ kenn par kenn taxaw leen wane leen ñu ne fàng ne dàng ne ñun ñoo rey kii. Mhm. ñi rey leen rey gu métti gu ñaaw sax. gis na gis nañ benn garab boo xam te aussi yaa ngi koy jaay. mu nekk garab boo xam ne maa ngi ñaawlu lim taxaw ci plateau di weer rakam. moom Balla Gaye loolu ñaawlu naa ko trop mais la weeree rakam aussi. waaw xam nga nit sa xarit ki la yelwaan sax ne la may ma. Uh-huh. waroo dem ca mbooloo ma ne maa ngi koy may. Ah, waxuma la ak sa rakk nag nga xam gannaaw nday ak bàyyi taaway toog sa rakk danga ko war a suturaal loo yor moo ko moom surtout ngeen bokku ndey ak bàyyi waroo koo defal lenn bu ñu la laajee ci sa waaru famille yow Balla gay sa xel mi nga yor ak mag bi nga doon waroon nga seexlu di wax sa rakk nangam ak nangam Sa Thiès tamit dafa juum trop nan la juume lu ko magam wax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw waroon na ko joppal tànk waaye di wax ñàkk fayda yeeg mais Sa Thiès am baax ak kee lim yor moo mais Sa Thiès am na droit ne Modou Lo roi bi mu yor mooy roi des arènes xool roi ay nit a fi deg teg yoonam nekku ci ampleur ay nit ko fi teg yoram nekku ci magam magam la su ko Balla Gaye saagoon ndey wala mu mbéj ko nit ñi vidéo ko sax bu génnee dafa war a jox cër ne kii sama mag la ma sama jox ma lekk ñoo bokk ndey ak bàyyi moo ma njëkk ci àdduna bi ma may dimbale sa Thiès tuubal ko loolu waaye yow tamit Balla Gaye naka la Baye njaay nekk sa xarit nekk sa doomu ndey Baye Ndiaye di tëgg combat yi Sa Thiès mënul fexe ba am combat li dara waraloo ko loolu Sa moo ñàkk fayda rek su fekkoon jàppoon na Eumeu seen daan ko konoon mu yéeg ni bo ni ni kii ni rëg-rëg jàppee. Bombardier Bombardier daan ko Eumeu seen jàpp Balla Gaye daan ko daanati ko Sa waroon na am fulla ak fayda te waxoon naa ko sama vidéo yi ne Sa Thiès jàkkoo fe waroo fee ñàkk fayda di yambar yambaru ba sa ba Eumeu seen di la daan kon Sa Thiès defaraatal sa bopp Balla nga tëj sa gémmiñ ji bul waxati jëmee sa rakk di ko wax ay wax yu ñaaw koo mënti dimbale yàlla la jox ndimbali dimbale ko tëgg tëj ci gémmiñ am na solo euh, Bilal Diané ñu bëgg duwaat ci beneen garab boo xam te ni ñu bëri dañuy faral di wax naan dose bi dafa bëri da nga koy naa mais pour nga yëg sa bopp ba daanu dafay jafe maa ngi ci yokk ren boo xamante ni maa ngi ko def ci turu yàlla wi bind ko ci ngaddu guro loolu ña ko daal def ci koo xam dañu la jàpp nga takk xala muudu muur yi dañ leen ko daal def wala da daal bokk nit ki gel wala nit di ngoro gel bi dem ba si yàggar ngi takk ko day mer xam nga lu muy def day dem ci yàmman yi nekk kii dafa takk sama gel jàppal ma kooy buñ ko jébbalee xale bi du ko mën a tëddee mag ñi ni nga def ngaddu guro la ñuy jël bind ci benn tur yàlla jox la ko sooy seex ngaddu guro yi boo koy sàq mi rek koddal ca changé moo tax dama koo defaat ci biir garab gii di naan koddal xoolal dafay tàngal deret gi faj feebar bi la jàppoon ba deret ji mënul wàcc ci kooy bi bu dee da war a dem toilette nga dem ko toilette bu dee danga nga saw mi moo téew woon boppam di zone fa nga toog di saw wala fa ngay demee dus fa ngay koddale waaye gis nga ay boo yeewoo ba sëyaat dafay dëgër de dafay gudd de dafay rëy te nee naa leen nag góor gu nekk war ngaa yor ngëpp yoraan ngëpp booba des ci koo amoo ko gënal garab bi nga xam yow muy fosu bi day tax nga bàyyi di fosu kooy bi ñi nga xamante dañuy mbalu seen kooy day sew ñi nga xamante dañuy mbalu seen kooy day gàtt day dem ba lese garabi kooy yi ñëwati na gën a baax dama génnoon dem Europe moo tax ngeen gën ma gis ñëw naa liggéey yi moo bari business yi bëri dem dem la yi bari am na solo bi loolu jàllee bëgg naa ñu dugg ci mbirum Sidi Diop mais balaa ma siy dugg dafa am bu ñuy wax Jalaal. Sidi Diop bul ma wax ci mbiram ku toll ni moom dem ba fi mu nekk ni ci réewum senegal dañuy wax Wally Seck ne Sidi Diop waxtuñ Pape yow nga dem ba nekk international di dawal oto ña lay jàpp ci yu ñàkk fayda yii ay amoo permis di dawal ay oto Gambie est nga passe est-ce que oto bi nekkul oto dóor oto sàcc di Diop nit day xam boppam xam sa nawle xam sa noonu nga bañ dugg si ñàkk fayda yi Abdou Karim Messi da ngay dem nga tiim Sidi Diop saago ko ndey ne ko bu ñu fontoo booy yàq nga liggéeyu nit ñi contrat jàmbur yi bari na nga tardel nit ñi dem place place de justice nit ñi taxaw foofu di rang ku nekk di la ñaawal ñàkk fayda ma ngi ci biir waaye tamit liggéey ma ci biir de gis nga gars bu ñu la jàppee ba liggéey la yaa xaafidu lañ lay dugal ci xaatim googu dangay torox su deful sangat ci boppam raguwaat te téye boppam dina duggaat ci geneen guuta te na takk jabar Sidi Diop bu takkoon jabar weesu na fi mu nekk yëpp tekk tekkiwu dara célibataire du jiitim réew. am na solo euh, fi ñu tëjee suñu waxtaan nag mooy kaay xew ci réew mi ku ne di taf sa moroom naan góor jigéen la du góor jigéen nag nga gisee lool ñu tëj waxtaan bi. góor jigéen ji bari na senegal lesbiennes yu bëri na Sénégal du man maa koy lijjanti ndax état de Sénégal moo koy lijjantiam déet xaw ma ku koy lijjanti waxoon naa la ko léegi ci commencement bi ne boo yoree comportement bu góor jigéen ku gis sa photo day gis si góor jigéen ci yow sooy dox ñi xam ne góor jigéen nañ ci yow dama ne bakkan dafa foor foofu lay tëjee sama waxtaan nag te doomu aadama mooy xalifatullahi fil ardi wala xad karam naa bani aadama yàlla dafa teral doomu aadama dañ ko war a delloo teraanga boobu Abdul Aziz boobu noonu du ma egg ci dabalaa gi tekki wutoon dara ci réewum Sénégal mosuñ see wax ci débat maa ngi nii di ci wax tey mais biñ ko reyee police jóg na plateau yi nit ñaa ngi cey wax tele yi nit ñaa ngi cey wax sëriñ Serigne Mountakha xolam tooy na ci lii maa Mahi Niass xolam tooy na ci lii. Serigne Mouhamadul Mansour si xolom tooy na ci xalifatu Tijaani Tiwaawoon asamaan si yëngu na suuf yëngu na aras yëngu na kursi yëngu na ndax bakkanu doomu aadama lañ jël ndax yàlla dafa teral doomu aadama daf ne yonent bi nañ julli ci moom ne doomu aadama nañ ko teral rey gi ñu rey doomu aadama moo tax asamaan yëngu lépp yëngu mën na sax yàq nawet bi lii ñu def nii suñ ci jógul ñu wax ci ñoo ngi koy naqarlu daal su wax ji continuer sama xol day jóg day tàng salaamaaleykum wa rahmatullah